Bonjour, auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi wa salatu wa wasalaamu ala rasulillahi salallahu taala wa sallam euh, monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu leen sant bu baax a baax bu baax bi euh, monsieur le ministre le département de Birkilane euh, compte 227 villages donc ce sont les nouvelles régions les nouvelles régions qui ont été créées en 2008 et ba tey jii nii département Birkelane amul conseil départemental amul siège Malem Hodar aussi la même chose donc yaakaar naa ni nit ki boo ko créé da nga ko war a accompagner ko donc 15 ans après amul ben infrastructure bo xam ne am fa donc yaakaar naa war nañ ci mëna a mais leneen li un euh, déséquilibre bi ko créé par rapport ak li nga moy le nombre de villages par commune suma jëlé commune bu melni de commune il y a plus de 56 villages ça pose problème dëkk bu melni ne Kër Ismaïla laay jël Kër Ismaïla dafa nek amo bo xam da daa bokk ci Mbirkilaan mais commune bu jaamal la bokk et c'est un sérieux problème parce que da ngay traverser commune pour mëna a ci benen commune pour wut ay kayit et loolu dafa bëri ci département de Birkelane te loolu yaakaar naa war nga ci mën a jàpp da ngay jël dëkk bu mel ne Taïfa da jóge Taïfa traversé Ségret soo ko dem Ndiogni pour wuti kayit ça pose énormément de problème donc lookeer naa loolu déséquilibre boobu war ngeen ci mën a mën a taxaw donc euh, bu baax a baax a baax euh, monsieur le ministre les du FERA surtout dans la région de Kaffrine le 5 on war nañu dem grève parce que ba fait une len pendant 6 mois de 6 mois de salaire donc lolu war nañ ci mëna a euh monsieur le ministre le problème des des marchés au niveau des mairies maires yëpp légui ay ki lañ ñu ci bari bok ay entrepreneur lañ ñom seen biir ñoy joxante marché maire bi ni day jël marché mairéem jox ko benen maire maire bobu ainsi de suite mu tourner seen diggante surtout les marchés à moins de 25 millions de francs nga xam du jaar DRPCO donc tous ces marchés là ñom seen biir la et lolu délit d'initié la et conflit d'intérêt donc lolu wax na la donc euh, benen bi moy monsieur le maire euh, les collectivités locales ont un sérieux problème euh, pour se recouvrir donc pour recouvrir les taxes donc monsieur le ministre des finances yakarna tay tey i taxe la wara def parce que tay xaalis wara tudd a jaar ci nit comme ça ki nga xam moy mooy wala lenen déedéet i taxe bi da ngay ñëw comme niñ ko defee car Dakar dem dikk yooyu téléphone bi lépp application yaa fi def leen lolu bu defee xaalis bi du jaaree ci nit xaalis bu jaaré ci nit da koy bàyyi ci poosam mu dem yoonam te su boobaa collectivité locale yi duñ ko jot monsieur le ministre des finances euh, yaakaar naa ne euh, li xewoon Kaffrine en 2008 2018 mooy euh, les rabatteurs là il y a des percepteurs qui sont des rabatteurs monsieur le ministre 2018 li fa am am na gis nga tey perception municipale percepteur bi warta mën a jël li nga xam ne moom mooy passation de service moom ak moroom percepteur am kese déedéet tous les maires dañoo war a def passation de service ak ñoom parce que percepteur bi nga xam ne ñëw na bu ñëwee dem def ak passation de service ak beneen percepteur ne ko yow beneen maire amu leen fi dara lu ci nit mën passation de service dafa être entre ñom ñet percepteur bi dem ki koy remplacer ak le maire concerné Ce ko defee ñu mëna xol li nga xam ceytu li nga xam né mom ci bi parce que 2018 li amone Kaffrine seul le maire de Mali, Odar mom mo bañon donc mais les les paiements de par avance donc ils gisoon nañ ko euh, monsieur le ministre ma ñew ci euh, li nga xam né mom moy les collectivités territoriales qui n'ont aucun moyen pour contrôler leurs avoirs amuñu benn moyen pour contrôler leurs avoirs alors que dañ ci war mëna mën a di nga wax mais Gefilop bu fekkee maire bi jàngul nu muy contrôler ku jàngut mënut a contrôler te maire yu bëri yàlla ma yàlla baal du ci ñoom nag mais aussi loolu la donc il faut ñu indi ci loolu ay solution euh, monsieur le ministre adjoint du maire bu amee 60 000 francs chauffeur bi buñ ko titulariser 125 000 francs lay am dañu waxante dëgg yow sa chauffeur mooy sa patron ci xaalis chauffeur bi am na 125 000 francs yow yow yow maire bi 60 000 francs waaw kooku yow boo gisee kër guy kii suuf suy taxawaalu wala nga gis leneen doo ko def loolu mooy indi problème bi donc loolu yaakaar naa lu ngeen lu ngeen war a mën a taxaw la et les mairies doivent avoir les détails dans leur compte de virement détails yi duñ ko am doo xam lii virement Senelec la doo xam doo xam benn virement donc mairie yi dañoo war a am euh, donc par rapport à ça les maires doivent être contrôlés surtout le recrutement pléthorique da ngay gis ab maire mu recruter recruter recruter mais recettes yi bu ñu ñëwee ñooy ëpp li nga xam ne moom mooy kii donc loolu war nañ cee mën a taxawal euh, la parole est à notre collègue Bakary Diédhiou Rokhaya Diop se prépare